naa ko ci ron dàll yonent yàlla muhammad kon yéen ñii ngeen waxee ne gëm ngeen mag ñi ñu gëm leen waaye bu ngeen waxee ne bëgg nañ yonent sagal ngeen waaye sagal ngeen maam bu maam bu waaye sagal ngeen maam Limaamu Laay waaye sagal ngeen Alaaji Mahmoud mi nga xam ne mooy fondateur xarakatul falaax waaye sagal ngeen alhaaji Cheikhou Touré mi nga xam ne mooy fondateur ICM union culturelle musulmane ak OAI waaye sagal ngeen al oustazul kabir alhaaji Malick Ndiaye mi nga xam ne moo sos Ibaadu Rahmaan sagal ngeen ñëpp tudd naa ñëpp te nga xam ko tudd ko ci laa ko boole jërëjëf jëf yal na yàlla fay leen yal yàlla fay leen yàlla na leen yàlla fay ci barkeb sëriñ sëriñ bi Muhammadu bnu Abdillahi saxaaba yi di wër di wër di wër ba gis Rabia gis ko ñu ngi ko jam ay xeej taw ko ay jaasi ba mënatul dara ñu ne ko yonent bi moo waxoon ñu seet la àddina waaye li ma leen di wax bàyyi leen si xel bu ngeen sàgganee ba yéeféeri rey Seydina Muhammad dootu leen jar dara ci àddina bi bu ngeen sàgganee ba ñu rey yonent bi ngeen torox àddina torox àllaaxira ñun tamit suñu sàgganee ba yéeféer yi di yab yonent bi sallallahu alayhi wa لذلك نود أن نعرب هنا عن رفضنا التام للاستفزازات لاستفزازات السلطات الفرنسية تجاه الأمة الإسلامية التي نحن جزء منها إن استخدام أي شيء ذريعة لمهاجمة شخصية يحبها حوالي مليار مسلم حبا صادقا وعميقا ليس إلا مجرد استفزاز سخيف لقد ضاعفت من صدمة هذه الهجمات المشينة على أفضل على أفضل المخلوقات الذي بعث خاتما للأنبياء ورسولا إلى البشرية ورسولا إلى البشرية جمعاء ليكون مظهر الرحمة أو ليكون مظهر الرحمة الإلهية للعالمين أنها جاءت في شهر ربيع الأول المبارك الذي شهد ولادته السعيدة بينما يترنم المادحون بذكر مآثر شخصه بذكر مآثر شخصه النبيل احتفاء بذكرى مولده احتفاء بذكرى مولده احتفاء بذكرى مولده احتفاء يترنم يترنم المادحون بذكر مآثر شخصه النبيل احتفاء بذكرى مولده المجيد في أماكن عديدة من العالم تشتهر فرنسا بتقليدها الراسخ في تضخيم الذات وهي الظاهرة التي يطلقون عليها عظمة فرنسا ومن عقدة الشعور بالعظمة المفرطة هذه يأتي ازدراؤها للآخرين ورغبتها الجارفة في دمجهم ويعني ذلك ببساطة نفي الثقافات والمعتقدات الأخرى إن فرنسا قلقة من رؤية الإسلام الأصيل كما علمه ومارسه محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه المخلصون يستعيد تدريجيا يستعيد هذا الإسلام تدريجيا حيويته وقدرته على التأثير في حياة الناس داخل البلدان الإسلامية بما في ذلك تلك التي خضعت لأمبراطوريتها الاستعمارية السابقة يوما ما لم تعد تطيق أي فرنسا أن ترى عقيدة الإسلام سمحته ومبادئه السامية وتعاليمه d'Allah le clément le miséricordieux salut sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son serviteur et son messager <clears throat> ainsi que musulmans du Sénégal sont foncièrement attachés à la paix et à la concorde entre les individus et les peuples. Nous ne pouvons donc rester indifférents à tout ce qui peut constituer une source de tension et de conflit. Aussi, tenons-nous à exprimer notre désapprobation totale des provocations des autorités françaises à l'égard de la Oumma islamique. Prendre prétexte de n'importe quoi pour s'attaquer à celui qu'environ 2 milliards de personnes aiment d'un amour sincère et indéfectible n'est rien d'autre qu'une provocation. En ce mois béni de Rabiul Awal, qu'il a vu naître, alors que partout à travers le monde retentissent les éloges à sa nombre de personnes pour commémorer sa naissance salvatrice, nous sommes choqués des attaques ignobles contre la meilleure des créatures. Le sceau des prophètes envoyé à l'humanité tout entière comme expression et manifestation de la miséricorde divine. est connu pour sa tradition d'autoglorification, communément appelée la grandeur de la France. C'est à cette exorbitante perception de soi que l'on doit son mépris vis-à-vis -vis des autres, sa volonté d'assimilation qui est négation des autres, des autres cultures et des autres croyances. Elle s'inquiète de voir l'islam authentique, l'islam tel et pratiqué par Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses fidèles successeurs reprendre petit à petit ses prérogatives dans les pays musulmans, y compris dans les pays de son ancien empire colonial. Elle n'en peut plus, surtout, de voir l'islam, son credo, ses principes, ses prescriptions et son mode de vie, ses pratiques dans les coins et recoins du monde occidental et surtout d'une France manifestement sous le dictat du sionisme international. Alors, elle prend prétexte de tout pour sévir, condamner, critiquer jusqu'au blasphème, ameuter l'Europe et l'Occident. Elle évoque des concepts et des faits propres de son histoire auquel elle donne arbitrairement une portée universelle. La révolution de 1789, la défense de la République et de ses valeurs, les Lumières, la laïcité, etc. Des faits et concepts qu'elle n'a jamais cessé d'essayer de nous imposer, d'abord par le fer et le feu, ensuite par la ruse et le santage, et à l'expérimentation desquels nous devons aujourd'hui l'essentiel de nos discours sociaux. la défense de la République, l'attachement à la laïcité, à la liberté d'action, à la lutte contre le séparatisme sont autant de faux prétextes pour vous en prendre à l'islam et aux musulmans de France. Leur façon de s'habiller, de manger, d'éduquer leurs enfants et de pratiquer leur culte. Dans les médias, les institutions publiques, même dans la sphère privée, il ne fait pas bon d'être musulman en France. et surtout d'être un musulman sincère, pieux et fidèle aux principes fondamentaux et aux prescriptions de sa religion. Caricaturer le prophète de l'islam, c'est faire preuve de manque de clairvoyance et de reconnaissance, puisque c'est toute l'humanité qui a bénéficié de son enseignement et de sa grande sagesse, ainsi que de sa guidance éclairée. C'est grâce à Sayyidina Mohammed que le soleil d'Allah brille sur l'Occident, pour reprendre l'heureuse formule d'Ingrid Hunt. C'est à lui, et non à vos prétendues lumières, que vous devez vos succès scientifiques et technologiques, lui qui a balisé la voie du savoir dans lequel se sont engouffrés des millions de musulmans, des siècles durant, répandant partout dans le monde l'esprit scientifique. arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yërmande soomi àdduna bi moo tax yàlla yónni Seydina Muhammad France li ko jaaxal mooy li islam di jollee jëm kaw di yokk ci àdduna bi loolu moo ko tiital loolu moo tax ñu jël waxtu wu nekk di dal ci kaw biir islam jël ki nga xam ne mooy xayrul xam gën ji bindeef ki bu woon a moom yàlla du bind dara ñu koy jéem a caricaturer lii lay ñoom waa France nee nañu dañuy jéem a défendre la république nee nañu nee nañu dañuy défendre la révolution de 1789 nee nañu dañuy défendre seeni valeur nee nañu dañuy xam ngeen ni yooyu ma tudd yëpp France jéem na ko imposer ci adduna bi ci jaay doole loolu mooy indi woon colonisation ñu coloniser ñu loolu mooy indi woon njaayum njaam yi loolu mooy indi yeneen moon moon yoo xam ni def nañu ko ci adduna bi te loolu juróom leen benn njëriñ au contraire daf leen yokku traxtaande li ñuy layee di wax liberté d'expression wala laïcité loolu moo tax ñuy dal ci kaw lislaam soo solee muuru ñu ni boo jàngee ci école bi ñu jàq la école boo solee muuru ñu dal sa kaw boole ak ay xaj boo solee muuru ñu di assemblée nationale bi ñu ni génne ci biti boo dee damay lekk lu dagan xalaal ñu doo ko fi lekke boo demee ci école bëgg sa yar yar say njaboot ci diine lislaam ñu doo ko fi defe loolu xam ngeen ni soo bëggee jaamu yàlla sax ñu la doo ko jaamoo caricature yi ñu jël di jéem a kajee caricature yonent bi xam ngeen loolu ak goree dina ci ñoom waa France ndax kat adduna bi yëpp laa wax bi yëpp amee nañu njukkal Seydina Muhammad amee nañ ko njukkal ci ay jàngaleem rawatina nag Occident boobu France bokk yéen ñëpp xam ngeen ni def na huit cent ans juróom-ñetti téeméeri at ci en Europe islam moo leen jàngal soumise islam moo leen jàngal science islam moo leen jàngal technologie islam moo leen jàngal xarala yi ba ñu jàngee ba pare dafa ñu lenn lenn ñu doon lakk bibliothèque ya pour yéen a wane ni xam-xam bi ñu ngi ko jëlee feneen pour ci islam moo tax li Imre Guèye di wax le soleil d'Allah brille sur l'Occident wallaahi dëgg la Mouhamed moo leeral Occident. islam mooy tënk valeur valeur doomu aadama yi gën a kawe islam moo ko tënk te loolu mu ngi ci njàngale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ko jëlee nii jot na jot na pour que Occident jot na pour que àdduna bi xam ne islam bi nga xam ni dañ koy xeex islam boobu njëriñ la ñu ñoom. bu ñu comprendre woon islam intégré islam jëfee a santaan islam ak yokku lay ak yokkute lay doon ci ñoom ak jëm kanam lay doon ci ñoom loolu moo tax mbokk yi euh, ñu di gërëm di leen sant ci wuyu si bi di ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla dafa jàmm yal na yàlla fay allahu akbar allahu akbar